seydina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa asxaabihi ridwaani wa tamkin amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara ci bis bu tedd bi ak ci barab bu tedd bi ak ci waxtu bu tedd bi ñu nekk di leen balu àq te di leen baal àq tey ñaan sunu borom tabaraka ko taala mu bàyyi fi suñu kilifa gu tedd gii ne ci sunu kanam lu gën a yàgg lool te dolli ko wér ak tawfiq ba mu àggale yéene bi nga xam ne yéene na ko ci diine ji yéene na ko ci yoon wi te ñu ànd ko ak moom tedd wi nga xam ne ci lañu nekk muy shahru rabiul awal muy weer woo xam ne mooy weeru wi ngir ñi mbindéef sallallahu alayhi wa feeñoon feeñ googu nga xam ne dafa dikk fekk àdduna bi yépp lëndëm lool réer tasaaroo lool mu wàcce ci barabu réer xam-xam waaye wàcce ci barabu lëndëm ak ay leer nit ñi ba muy laata ñëw dañ doon dund ci ay coono yu metti ak ci ay sikki sàkka yu réy ku am rekk yow yaa kawe ki amul ku am doole yow yaa kawe ki néew doole nit ñi di dund ci ak xër ay xërëm di jaamu ay xërëm di sellal ay sawara di def lu ne nga xam ne kon nit ñi kon ñu ngi ci rayb rayb sikki sàkka kenn xamut looy jaamu moom nag feeñam googu mu feeñ ci bis bi nag ñëw nag dindi mboolem lëndëm lëndëm yooyu yépp ci àdduna leeral ko ba mu leer naññ mu sóob ci nit ñi ñu sóobu ci ànd ci ak moom ba mu ñëwee nag àdduna daal xëy nag nekk ci ak wóolu gannaaw bu nekkee ci sikk sàkka waaye nekk ci maandu gannaaw bu nekkee ci tooñaanga di jaamu seen borom képp te bañ koo bokkaale kenn ni ko Cheikhul Xadim radiyallahu taala anhu waxee ci jësbul xuluub laylatu mawlidi nabi laylatu maxwi riyabi laylatu maxwi taabi wa tuxri di taasumi biha najaatu walfalaax ma assururi wa najaax bi arrabaaxu wasalaax ma andifaa indiqami bi loolu amee nag kon noonu la ko sëriñ bi waxee ne guddik feeñu yonent bi mooy guddi gi far sàkk ci àdduna mooy guddi gi nga far ne moo far ay coono ci àdduna mooy guddi gi nga xam ne moo laabal woy laa woy woy bakkaar yi ci seeni bakkaar nga ne ko kon lu ñu ca jëlee mu ne bi han najaatu wal falaax ci guddi googu la ñu amee ak mucc ak ak texe ak i mbég ak i tono ak i defar yu bari ànd ak jañu loo xam ne ab sànj lay nuru wala lu metti lay nuru kon guddi gu tedd la goo xam ne bu ñëwee li muy baamu di ñëw bari na waaye saa bu ñëwee rek ñu war a teewlu ci sunuy xol teewlu ci sunuy xel li ñu newoon ga njëkk muy ñëw ak li ñu newaat gannaaw bu mu ñëwee ñu war ko teewlu bu baax te seetantal ko bu baax a baax a baax loolu moo tax it saa bu dikkee ñu di ko fàttaliku di ci sant sunu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo nu xéewal xéewal gu màgg googu te sunu borom bu la xéewalee xéewal gu màgg day bëgg nga di ko fàttaliku te di ko ca sant jamono yu nekk qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dalika falya wa bi dalika falyafrahu huwa xayru mimma yajmaun yàlla bu la xéewalee dolli la yërmandeem da nga cay bëgg te di ko ca sant loolu nee na moo gën lépp lu ngeen di dajale kon kon bis bi bisub cant la bisub fàttaliku la bisub cant la bisub fàttaliku la bu dee bisub cant nag cant moom ak jaamu yàlla la bokk ci jaamu yàlla yi gën a mag ci jaamu yàlla yi kon ku koy def war a xam noo koy defee ndax jaamu yàlla kenn du ko tañaxu jaamu yàlla kenn du ko faraatu dañ koy seet na ko borom bi bëggee ñu defee ko noonu mu ko bëggee mooy tax ñu am ci lam ci diggee noonu ma ko diggee diglee nag ñu ñu màggalee ko ko nag santee ko sunu borom tabaraka wa taala mooy ni ko cheikhul xadim radiallahu taala anhu waxee rek ca jazbul qulub ne taazimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati màggal ko ci jaar ko ci yoonu sunna ni ko sunna rëddee nga defee ko noonu nee na dana ommat ba tabal ñu ajana kon la njëkk ca màggal ga mooy li sunu borom gën a fonk gën koo réyal mooy jàng alquran jàng alxuraan bu baree bare bari ci bëccëg bi ak ci guddi gi yëpp ñu di ci jàng alxuraan di ko sante suñu borom tabaraka wa taala ndax jàng alxuraan jaamu yàlla la sant yàlla la law shukuur yi bi quraanin urattiluhu min wa huwa lii walamu sant yàlla ci jàng alxuraan jàng ci boppam dama koy def ngir sant yàlla suñu borom tabaraka wa kon jàng alxuraan mooy li ci jiitu ngir sante ko borom bi tabaraka wa taala ku ne xam na ne it cheikhul xadim mi wax loolu moom alxuraan fi ko tolloon ak fi mu ko tegoon ak ni ko daan jëfandikoo yëpp daanaka léppam rek mën nañoo wax ne alxuraan la léppam léppam rek alxuraan la gannaaw buñ noppee ci alxuraan ji wala ñu boole ko ak loolu muy jàng xasida yi xasida yi nga xam ne cheikhul xadim moo ko taalif te bi mu ko taalifee mu boole ko ak tudd yàlla ak tagg yàlla ak julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa ak tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ko ci tudd ay meloom yi ñu sant yépp ak ay kaawteefam ak siiraam bu laab boobu mu am ñu di ca nettali yooyu yëpp di ko ca waxal nit ñi ñu di ci bëgg di ko gën a sopp di ko gën a topp bu ko defee loolu lépp nekk ci biir eh, màggal guddi gi jàng xasida yi bu baax a baax a baax am na xasida yoo xam ne sëriñ bi da koo liggéey te jëmale ko ci mawlidu nabi rek yenn yi da koy tagg yenn yi day julli ci moom yenn yi day nettali ay siiraam doxaay ay doxwaayam fi mu dox ak fi mu jaar ba mbir mi agsi fii yëpp mu di ko ca nettali xasida yu mel noonu di ko jàng ci guddi gu mel nii nekk na lu am solo jës bu muwaahibu muqaddimaat mafaatihul bishri yasbul xuluub yëpp ak yudul yooyu muy ay xasida yoo xam ne sëñ bi daf koo def ngir jagale ko laylatu mawlidi bi képp la ko jagaleel ak yeneen yudul yooyu kon jàng ci xasida te fas yéene caa ak màggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene caa xam ay jikkoom xam ay meloom bokk na ci li nga xam ne war nañ ko màggalee guddi gi bokk na ci dañ ko war a màggalee it mooy di ca lele di ca joxe aw ñam wala ngay joxe lu ko defar aw joxe aw ñam lu am solo la ci lislaam wa yutimuuna taama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nutimukum li wajhi llah laa nuridu minkum jasaan wala shukura loolu sunu borom tabaraka wa taala moo ko wax cheikhul xadim radiallahu taala anhu wax na ci lu leer nàññ fa man taaman hayya liman lahu qad qaraa mubajjilan fa xabaha xayraati ahli lhimami képp koo xam ne waajal nga ci aw ñam defar ko wala nga defar joxe lu ko defar nee na làq nga mboolem la nga xam ne yiwu woy itte itteewo woon ba am ko loolu yow làq nga ko yow ci màggal googu nga màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa beneen ba ci des mooy nga sopp ko nag sopp yonent bi boo ko màggalee noonu ba noppi nga sopp ko sopp ko nag nga daal di topp naam ak i jeexitam yépp ci say wax ci say jëf ci say jikko yépp nga di ca xeñtu aw doxiinam di ca xent xeñtu aw eh, eh, waxiinam loolu lépp nga di ko def te di ko yéene roy yonent bi sallallahu alayhi wa ndax sopp yonent bi sallallahu alayhi wa dafa bokk ci liy matal ak gëm yàlla nit ki gëm yàllaam du mat mukk lu dul ne sopp yonent bi ba mu gënal ko boppam da caa nekk ci biir laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wannaasi ajmain kenn ci yéen ngëmam du mat sëkk lu dul ne man ci sama bopp dama ko gënal boppam gënal ko ay waajuram gënal ko mboolem nit ñëpp kon sopp yonente bi sallallahu alayhi dafa nekk loo xam ne farata la ci nit wasalli daban ala man xubbuhu furida na nga julli ci yonente bi nga xam ne sopp ko yàlla daf ko faratal ci doomu aadama yi kenn ku nekk da ko war a sopp gën koo sopp ci sa bopp gën koo sopp ci sa say waajur gën ko sopp ci nii ñëpp waaye cofeel googu nag day mbirum xol mbirum xol moo xam ne eh, yàlla rek moo xam <coughs> la cay dëgg ak la ca du dëgg ndax xol <coughs> mbirum sopp moom mbirum xol la waaye nag day am lu koy feeñal loo xam ne mooy wane ne cofeel googee dëgg la ci yow cofeel googee dëgg la ci yow mooy roy su naam topp ay jeexitam qul in kuntum tuhibuuna allaha fattabiuuna yuxbibkum allah bu ngeen ma soppee man yàlla da ngeen di topp yonent bi kon sopp lii tegtale dëggal dëggal ga mooy topp topp ka nga sopp te roy ko te di ko xencu ay jeexitam moom cheikhul xadim radiallahu taala anhu loolu da cee jeexoon tag ba lu loo xam ne daanaka xasida yi doo romb genn xasida goo xam ne fekkoo ca lu mel noonu luy wone sopp gu sopp yonente bi sallallahu alayhi wa boo ko da ci lay wone sopp ko rek mooy fu mu ko tuddee dana julli ci moom fu mu ko tuddee rek lu mu jegee jegee dana julli ci moom ngir wane cofeel gu ko cofeel ndax cofeel day loo xam ne mbirum xol la faaw nga feeñal ko ci ay jëf ak ci ay ay wax nee na moom Seexul Xadim nee na inna mahabbata al ilaahi laatu naal illaa bi xafil Moustapha baabi nawal sopp yonent bi sallallahu alayhi wa kenn du ko mën a am lu dul ku koy roy ku koy roy képp moo ko moo ko moo ko mën a am kon sopp yonent bi liy teg ba ne dëgg la ci nit ki mooy mu di ko roy di ko toppandoo banaytu taatiya bittibaai bi sun bi zikri wal alxadiisi wal ijmaai sama jaamu yàlla gii de dama ko tabax ci alquran tabax ko ci addis yonent bi sallallahu alayhi wa tabax ko ci ndajam woy borom xam-xam yëpp ñett yooyu ci laa tabax samay jaamu yàlla kon wane na ne kon moom sopp yonent bi waaye nag wane na ko ci ay jëf wane na ko ci ay ay wax yardal ilaahu yardal ilaahu anka in rumta iqtifa sunnata sunnata xayril aalamiin al muqtafa nee na yàlla dana la gërëm yàlla dana la gërëm sant la su fekkee euh, sa sàkku nga roy yonent bi sallallahu alayhi ci say jëf ak ci say wax yëpp nga di ko ci roy di ko ci toppandoo bu defee loolu mooy doon lu am solo ci yow wa minhu rumtu listixaamata abad bi sunnatil muxtaari xayri man abad mooy maa ngi sàkku ci sunu borom tabaraka wa taala mu may ma may roy yonent bi sallallahu alayhi wa di topp ay jeex itam ci samay wax ak ci say samay samay jëf yooyu yëpp ak yu dul yooyu day wone rek sopp gum ko sopp ak topp gum ko topp ngir wone cofeel googu nga xam ne moo ne ci moom mu mën koo wone ci ay jëf mën koo wone ci ay wax kon ku sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam du doon looy wax rek waaye looy jëf la wone ko ci say wax ak say jëf yëpp nga wone ko ca bañ xam ne yow mii ku sopp yonent bi nga corazón. Muhammadur Rasul ci bis bi sant ci sunu borom tabaraka wa taala ngir xéewal gi mu ci xéewal te sante ko nii ko Cheikhul Xadim radiyallahu taala anhu rëddee muy jàng ci alxuraan jàng ci xasida yi làmboo tudd yàlla ak tagg yàlla ak julli ci yonent bi ak tagg ko waaye nga leele ci aw ñam wala nga joxe ca lu ko lu ko lu ko lu ko mën a lu ko mën a defar loolu boo ko defee roy yonent bi sallallahu alayhi nag loo man nga di ko ci say wax roy ko ci say jëf roy ko ci say jikko su ko defee yow mën ngaa am yaakaar ci ne dundal nga guddi gi topp nga yonent bi sallallahu alayhi wa ku ko def nag day am loo ca jëlee loo xam ne ay njariñ lay doon yoo xam ne yow ma dundal guddi gi ci noonu ñu ko waxee loolu yow yaa koy am loolu nag bokk na ca muy daf lay ommat ba dugal la ajjana moom dundal guddi gi bi sallallahu alayhi wa noonu la màggee ku ko def te def ko nañu ko bëggee li muxlisin mu azimi ku ko def te sellal ko màggal ko sellal ko da nga jëlee dugg ajjana bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam تعظيمه بالسنة يقودنا للجنة به ازدياد المنة لمخلص معظم danga ci am ñaari pay payug àllaaxira muy dugg àjjana ak payug àdduna muy dolli ko ay xéewal képp ku màggal guddi yonent bi danga ci jëlee ñaar yooyu daane fa kullu man anfaqa fi mawlidihi almusharafi maalan bi xayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman xadar yowma xunaynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayral waral mufahimi képp koo xam ne def def nga ci sab dërëm màggale ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam donte ne ab dërëm la mel nga ne ku teewe xareb xunayn ak xareb badar te ba nga ko teewe faste woo say loxo rek waaye da nga ànd ca ñu dimbali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuxaasabu gada yowma ijtimaahil képp koo xam ne màggal nga guddi gii nanga ko war a maggale kenn du la xisaab ëllëg ëllëg ca bisub isaab ba kenn du la isaab foofa dañ lay bàyyi rek nga jàll kon yooyu ak yudul moom yu baree baree bari yoo xam ne sëriñ bi wax na ko ci njariñi màggal guddi gi ak euh, meññet yi nga xam ne mën na cee juddoo ixyaau mawlidil bachir yaxmil ayaala wa duyuur fiihi chifaun li sudur li kulli haadin yanta bi ne na gudd dundal guddi gi bi sallallahu alayhi wasallam day aar kër yi day aar njaboot gi day yi day aar njaboot gi day saafara jàngoroy xol yëpp da koy saafara mboolem jàngoroy xol yi nekk ci ñun bu buñ ko euh, dundalee te sellal ko loolu lépp mën na caa mën nañ mën ko caa jëlee kon yooyu ak yu dul ñoom ci ay ngëneel ak i njariñ yu yu bari yoo xam ne mën nañ koo jëlee ci guddi yonente bi sallallahu alayhi suñ ko màggalee te màggalee ko niñ ko war a màggalee loolu mën nañ ko caa jëlee kon yàlla nu yàlla dimbale ba ñu àgg ci guddi ga te buñ ci àggee ñu dundal ko ni ko boroom diglee walla ni ko borom taamoo ba ñu am ca la nga xam ne moom la ca diggee ci ay njariñ ak ci ay meññet yoo xam mën nañu caa watee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bu ko defee xutba bi nga xam ne nag moom la imaam di xutba ci ajuma ji muy ajuma ñaareel ji mooy gannaaw bu mu julli ci yonent bi euh, sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo fàttali euh, daf ñoo fàttali ne nit ñi da ngeen fàttaliku ne weer wii mooy weeru rabiul awal mooy weer wi nga xam ne ki ñu ramm di ngeen ji ramm ji ngeen ji safi ji moom ci la feeñ kon na ngeen ko xam te xam darajaam te na ngeen ko màng ci jëf yu baax yoo xam ne daf leen di dolli aw yiw na ngeen sopp na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen rusa def ak mooy yàlla ci weer wii ci weer wu ne waaye rawatina nag ci weer wii wala ngeen ciy wute ak ndigalam na ngeen ko wattane ku baax a baax ndax yàlla ci boppam tabaraka wa taala moo leen xéewal ki nga xam ne moo leen def ngeen di ngeen ji xeet li tax ngeen gën ji xeet xayr xuntum xayra ummatin uxrijat linnaas fa ngeen ko mooy ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam feeñee ci yéen rek booba ngeen am loola booba ngeen jiitu keneen dul yéen ña jiitu woon ñëpp ngeen xeet yi mujj ñëw waaye yéen ngeen jiitu ñëpp ci ngëneelal yonent boobu sallallahu alayhi wasallam ci ngeen ko xa amee moom war ngeen a xam darajay weer woowu mu feeñee kon weer woowu mooy lee mooy weer wi nga xam ne ci la Euh, euh, leeru àdduna bi feeñee leer gi nga xam ne bu amutoon dara du am bu amutoon kenn du am dara du am kon nañ ko màggal te nañ ko sopp te nañ ko réel ba àggale ko foo xam ne dana euh, neex boroom xutbam ñaareel bi mu ne gannaaw bu mu julli ci sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu mu ne yéen nit ñi maa ngi leen xamal ne ki xel lu dëgg dëgg dëgg mooy ki taqoog dénkaane yi bi nga xam ne moom la yàlla dénkoon ña leen jëkkoon mooy ragal yàlla wala xad wassayna allazina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah ragal yàlla la yàlla dénkoon ña leen jëkkoon yéen tam moom la leen dénk kon jël leen ragal yàlla def ko muy seen mu seen yoon bi ngeen di jaar muy seen jëf yi nga xam ne ci ngeen mën a jëf loo xam ne bu ëllëgee ba kenn ku ne ñuy teewal sa jëf di la ko fay bu boobaa loole lañ leen di fay kon na ngeen ragal yàlla ragal yàlla bi nga xam ne mooy feeñal mboolem bëgg-bëggu ñii commerce ñi nga xam ne dañuy commerce kuy commerce da bëgg dara kuy commerce nag commercial ci ragal yàlla ndax ca ngay texee ca ngay amee la nga bëgg te bu la dara la dox sa diggante ak ragal yàlla googu nag bu la dara dox sa digganteeg moom ak jaamu yàlla gi nga xam ne moo lay may ragal yàlla googu kon jaamu yàlla ak ragal yàlla bu la dara dox seen diggante ak ñoom tatajaafa junubuhum anil madaaji yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun kon yàlla nu yàlla jariñ ci sopp yonent bi sallallaahu wa sallam ak sopp waa këram ak sopp ay saxaabaam ak sopp képp ku ko sopp ci wormaal leen ci darajaal leen ak ndax sopp googu day farata ci ñun goo xam ne yàllaa ko faratal ci ñun kon ñun ñëpp nañ ko ànd sopp ko te bëgg ko te màggal ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله مدبر الأمور ومشرف الأقدار الفاعل لما يريد بمحض المشيئة والاختيار نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله الذي بنوره أشرقت الأنوار صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحابته الكرام البررة الأخيار أما بعد فيا أيها الناس haada shahrukum rabiic alladi bada fiihi lil wujuudi akramu shafiic facrifuu raximakum ullah li shahrikum haada qadra wagtanimuu bilcamali saalixi barakatahu wa xayra wastaxyu min allahi an taxsuuhu aw tuxaalifu amra fa innahu manna alaykum fiihi binabiyikum alladi kuntum bihi afdala al umam wa sabaqtum bihi wa in taaxartum man salafa minhum wa taqaddam qaala taala kuntum xayra ummatin muxrijat linnaas taamuruuna bilmaarufi wa tanhawna anil munkari wa tuumin فهذا فهذا الشهر برز فيه للوجود نبي لولاه ما تحققت الحقائق ولا وجد شيء من الخلائق ولولا نوره ما أشرقت الأنوار ولا عبد الواحد القهار الحمد لله الذي أكرم آل البيت بش آل البيت الشريف بالنسب الطيب الطاهر وحباهم بالحسب الواضح الظاهر والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآمر الناهي بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أما بعد فيا عباد الله إن العاقلة من التزم الوصية التي وصى بها سبحانه جميع عباده فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتخذوا التقوى مسلكا ومتجرا وعملا ليوم تجد فيه كل نفس ما عملت من من خير مهضرا فتقوى الله متجر الفائزين وغاية من المقربين القائمين بأمر الله لا يفارقون الذين يتقربون إليه ويتعبدون لا يقطعهم عن مولاهم قاطع ولا يمنعهم من الجد في العبادة مانع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اللهم انفعنا بمحبتهم ومحبة آل البيت الكرام والقيام بما يجب لهم من التعظيم والاحترام مع أن محبتهم فرض أكيد على الأعيان وشرط في صحة الإيمان يغفر الله لنا ولكم آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu hayya ala salaati hayya ala falaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah Allah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 فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء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 asalaamaaleykum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 وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس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 قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آه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 di dem ci géej gi te dajeeg ñoom ci jeewal ci tisbaar joojee gis ngeen ba mu dajeeg ñoom foofa yàlla rekk la xalaat moo ne ci xelam naajaytuhu bi yaa nasiru yaa wali kafaytani iblisa inda jeewali nga xam ne suñu borom la woo fu mu jaaxle rek suñ borom rekk lay woo moom waaw gis nañ bi nga xam ne dem nañ bu jublu ga am na ci ñi àndoon ak tubaab yi ku wax soose ab sénégalais sénégalais la woon nee na daa ñëw ba tolloog moom soosee ko nettali sëñ mat la mi nettali na ko sëñ basiru nettali na ko nee na damaa ñëw ba tolloog moom ne ko sëñ bi day fi mu ne muslaay goo xam doyoo nga def ko ñaan goo xam ne doyoo nga necc ndax gaa ñii day moom dogu nañ ci faagaagal la moom waaye dane ma suñu borom luutul ci dara te umpluwul dara nee na waaye bi ma waxee loolu dama ne tekk taxaw nga xam ne fas wi sax dama taxaw ak moom waaw lii mu ma tontu ak li ma ko wax te man dama ko yërum rek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 lii e, ibnul mualla jàmbaar joojee loolu moo xam ne laqad sabaka allahu alxadima xabibahu bi kulli imtixaanin maa yuhawimu aariqu wa qallabahu taqliba muntaqidin lahu fa alfaahu tibran laysa yarxusu naafiqu walaw anna fiihi lil ilahi mushaarikan la kaana mudaalan minhu qablu mushaaqiqu ba bay nee jeex mooy yàlla da ko siqut ak kenn ndax da koo natt ruyal ko ci biir nattu yi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 man ma mën cee wax waaye ginnaaw ka ko wax gisuma ko duma ci mën a tontu tax na ñu yóbbu ko waaye moom naka jëkk daa jëppul ni daa nekk ci loxoy tubaab bi dal la qad dannani asira gayra man su sama borom ma jàpp loolu la daa wax waaye tubaab maanaam amul doole mën ma téye moo tax natt yooyu yëpp mu mun ko ci xol bu ànd ak nangul yàlla